ko seede ci euh, jigéen ju baax ji di Adjatou Kiné Diouf Diaga bokk na ci ngërëm li nga xam ni moom la ko boroom këram gërëm ba def ko ci way àdduna yépp dégg ngërëm loolu ci way ngërëmul boroom kër lu muy def ci soxna alima jigéen ñeent ko jëriñ euh, ci àddina ak yomal xiyaam alima way wi dafa ñaari chose yu ci ne bi ma ko dégloo mooy jural nga ma ay naaru góor naaru góor ak ay futanke futanke man nag bokk na bi ma ci marqué nangul nga ma ni farine nangulee boulanger. xam nga luy way. mooy diine ji. Hmm? diine ji waaw nga mel ci diine ni ci diine. jortu naa ni boo doon góor. xam nga lu tax. Oh. alima tëdd ba guddi. papa coon déggoo jàpp leen mu ngi ñëw muy mandikat yàlla suturaal na ba jur woo <laughs> jàpp leen ko sàcc la. yàlla def na ba juróo ko mun ko juró nga may ay naaru góor ak ay futante njortu naa ni boo doon góor di nga jël yoonu sufiyanke di nga jël yoonu sufiyanke xam nga lu tax wallaahi lu ma lay wax dëgg la nee na ma Mouhamed man affaire yu yi détail politique day métti sama bopp mënuma ko déglu mosuma ko déglu mosuma fa dem déggu ko muy déglu lu nduroog àdduna looy waxtaan ak moom détail yu diine lay doon wala yonent bi mbaa mu yónnee la benn affaire ne la nangam bi ban jàngat nga ci am di xool yow lan nga ciy wax. doguma la dégg nañu ci vidéo yi ñu gis vidéo ci internet bi yëpp gis nañu benn vidéo bu Papa Thione naan jaaga euh, du déglu Thione Seck du déglu Waly du déglu Youssou Ndour du déglu Baaba Maal moom ku way yonent bi rek lay dégg. sallallahu alayhi wa sallam xoolal loolu. Mm. sa borom kër seede loolu borom këram moo wax loolu. daf ma daan wax ci gémmiñam. ni ma Mouhamed bu ma jullee fajar ba noppi. dama am benn audio bu ma teg bu ma amaatoon beneen audio bu gën a porté teg yàlla nee na waxtaane leen jëf yi nit ku baax confirmation wu ku nekk màkk def sa farata dem Medina defal ko vidéo yónnee ko mu ni loo ma mën a defal ci àdduna li nga ma defal la gën a rëy ci man dootoo ma defal ci àdduna lu gën a rëy lii loolooy audio bi Oustaz ñu wax kay ñëwul ci suñu laaj bi Oustaz bu ma amoon beneen dama koy teg fa laa jëm waaw pour confirmer ko mhm. mais gis nga yàlla dafa ni yonent bi dafa ni jigéen alima pour mu dem aljana ñeenta tax mu dem aljana mooy góor a gën a sakkan la yonent bi nee na jigéen isa sallaytil maratu xamsaha jigéen bu dee julli julli juróomam wa saamat sahraha di woor weeru kooram wa xafisat farjaha wattu péeyam mooy am ba kudul boroom këram amu ci wàll mhm. wa ataat zawjaha ak topp boroom këram ñeenti yi nee na bu ko jigéen matale daxalal janna day dugg aljanna donc ngërëmal boroom kër bokk na ci li mën a dugal jigéen aljanna ngërëm lu mën a doon ci àdduna bu ñu la tëralee ci kuusu bàmmeel ngërëm yëpp yàlla danaan eskay bu jëkkër gërëmee mu ne aha parce que yàlla nee na waxtaane leen waxtaane leen ki dee yi mu rafetle kon bu nit ñi di wax sa mbaax yàlla mën na wax eskay waay sama jaam bi nii la meloon eskay waay waaye bu borom kër waxee yàlla ne aha ah bu kii seedee nag waaye te xoolal seede yi ni mu garaawee dafa mel ne dafa xamul ni mooy jiitu ji mu teel koo way bàyyi fi way woo nga xam ne du fay ba yow mal xiyaam wallaahi ci biir way wi dégg nga mi ngi koy wax ni ko mënoon naa lay tagg ci sa ay baay ak wala say ci sa juddu ci sa juddu waaw mais taggu Sénégal suñu aada mooy booy way nit di nga ko ne di way sa ndey di way sa baay waaw dëgg la mu teg ci ni dëgg la waaye lépp naa ko ba beneen yoon ci biir way bi wax jikko yi nga làmboo ma gënal wa musuñoo jote lu dul coowal fiiraange te liñ jote ñoom ñaar kat yàlla sax noonu la mel ndax yàlla baale na mbooleem bàkkaari moom des ku ko bokkaale bu yàlla attanut loolu benn mi def attanu ko dëgg mu gërëm ko ngërëm loo xam ne dafay des diway way moom itamit avant muy dem mu gërëm doomam tabaski daaw tabaski ren fekk di ko fekk biir bàmmeel allahu akbar la yàlla teral ko li ma leex mm, semaine bii passé jumaa ji ñu jullee woon moom yi bi ma fa delloo am benn takk man ak imaam bi ñuy waxtaanaat dafa ne ma li ma yéem ci ay doomam mooy fajar saa yoo geesoo gis leen ci biir jumaa ji macha allah Seydina Muhammad doomam moo ma wax ci gémmiñam ni ma bu ma demee ci tudd gis xale bi di góor ñu tuddee ko keneen ku dul yonent bi mu Mouhamed sama journée boobu day yàqu tëdd rek lay bëgg duma bëgg a jóg hmm? wallaahi ne ma bu ma demee ci tudd gis muy góor ñu tuddee xale bi keneen damay wax lu tax tuddeewuñ ko yonent bi sama journée day yàqu sallallahu alayhi wa sallam ci ci ci njabootam laa de jural nga ma ay naaru góor naaru góor ak i futank waale bu amoon xaritam bu am doom di ko ko bëgg a tuddee danaan ko boo bëggee mu neex ma te mu dëggu ci sama xol bi tuddeel ma ko yonent bi kon xanaa entourage am waroon naa baari ay waali waali waali waali mm-hmm. mais ñoom ñëpp day wax ni doomi niñ leen tuddee yonent bi sallallahu alayhi wa nit koo gis alima am na lu muy làmboo mm-hmm. waaye yaay jaaga ngërëm li ngërëm alima ngërëmal yàlla kase la ndax coon nit ku direct la waaw xam nga yenn nit dina gërëm nit ndax ñàkk pexe mm-hmm. mais boo xoolee coon nit la ku amul ñaari kàddu nit ku def nii la te itam ki mu gërëm mënoon na koo gërëm nit ñi bañ koo gis ci moom. dëgg la dëgg la. mais li nit ñi di gis ci moom mooy ni mu mel démb damay génn benn meer woo ma. Mhm. ni ma ni ma ni ma hôpital Fann laa doon fajoo. Mhm. Faat Diop laa tudd. Mhm. te maire bi daje naa fa ak moom defe naa ñetti yoon ñeenti yoon yoo xam ni aljuma bu may dem di añi ñu ñaar ñooy daje. toog waxtaan ak meer mu ne ma xam nga lu ñu xamante le ma ne ko déedéet mu ne ma bi ñuy rappel sama tur bari ma fa euh, nu mu tudd nday faatu dafa def teg bàyyi ba ma dugg ba génn mu nuyoon teg man xàmmeewu ma ko parce que moom buy dem ci mbooloo day nëbbatu day muuru day muuru nee na mu nuyonte ak man ni ni ko sa ordonnance bi ñaata la mu génne woon ko ordinance bi mun ko xanaa dafa ànd ak ay rajo maire bi génne woon ko rajo yi lépp environ nekk huit cent et quelques mille yaay jaaga ni ko maa koy lépp jël naa engagement euh, démb démb bi may génn la ne xaw ma fan laa ko mën a waxe mais lii moom moo ma ko defal te maire bi xam naa ko bu baax ku dal parce que daje naa fa ak moom yooni yooni yooni yooni yoon mu ne ma lii moom moom ma ko defal am naa ci ay nit yoo xam ne am naa ci seede yu ma wóor ñuy yëmbal lañuy dëkk ñuy feneen la ñuy dëkk ni muumi doon def alima di teral ay nit noonu la doon jëlee teraanga di leen jox. loolu loolu laa bëggoon wax j'ai comme l'impression que li mu nekkoon noonu ci la euh, xiirtal njabootam ba ñoom itam ci la ñu nekkoon di def lu baax. mais discrètement. Mhm. Euh, euh, Oustaz dañu lay bàyyi nga souffler un tout petit peu. Oh. parce que 13 jot na. tooyal na xol yëpp merci beaucoup walaay tooyal na xol yëpp ñu ngi jotee message de partout ñëpp di ñaanal jigéen ju baax bi suñu borom xaare ko aljanay firdawsi Cheikh Anta ñu dem fàttali partenaires yi nga xam ne ñoom ñoo ñuy gunge ñu dellu. li waj illaahi buñ fa mënta wax lu baax wax naa ko bu yàggul ministre Arona Coumba Ndoffène yaayam génn àdduna nit ñi di jaal fekk ma yoral woon soxnaam njaal bu ma ko doon yóbbul sooñaa ma nga ca Amérique ma ko yóbbul njaalam ma ne leen kii ngeen tiim ku ne di ko dee naan ko bon condoléance période bi la ñu laaj yaayam te naa la xamal dara yonent bi nee na ñaan bu ne mën naa takk bu jëm ci néew ba mu des ñett nee na isa maata bu gaañoo ibnu aadama doomu aadama in xataa arrêté na amaluhu ay jëfam ilaa salaasa ba mu des ñett mooy mhm. sadaxatun jaariya mooy sarax yi nga daan saraxe alima nit ñi te yàlla tax waxuma la na ñu génne loola sarax ndax dangaa bëgg a tukki defoo ko te yàlla tax sa mbir ngay baaxal mhm. sarax te yàlla tax ak sarax ngir sa intérêt du nu benn oustaz ñun noonu la ñuy saraxee bëgg am jëkkër ñun la boo bëggee jubóog sa jëkkër saraxel nangam saraxewoo ko te yàlla tax da koo sarax ngir sa sëy neex dëgg la sarax te yàlla tax mooy sarax bi la bett te foogoo mhm. tourné rek gis ay xale yu tilim nga jënd ay yére jox leen te yàlla tax. fekk loolu rek a nekkoon sa poos nga yëkkati jox leen ko. waaw yàlla yàlla na boo joxe nag bul joxe lépp. bul joxe lépp lan tanaalul birra hattaa tunfiqu mimmaa tuhibbuun ñaar fukk nga yor mënta ñàkk saraxal juróom-benn yi. Mhm. dégg yàlla. yonent boo daan saraxal te yàlla tax. alima yàlla nee na direct mu ci bàmmeel di la xaar. aw ilmun yuntafau min baadihi wala xam-xam boo fi bàyyi nit ñi di ko jariñoo tamuy mbaax wala garab goo jëmbatul nit ñi di ci féexlu mhm. wala teen boo gasoon nit ñi di ci naan di ci jàpp ñu ni yàlla ak yonent bi ak ban mu ni bi ci gën nag wala dun doom joo xam ne saalixun dafa baax la wax yaddu lahu bu lay ñaanal nee na ñaanam min ka ilayka direct lay def